maam Afrika Mbacke Fane. waaw dox kon dañ gën a jàpp ne 26 ans ñu ngi koy liggéeyal maam Afrika Mbacke Serigne Touba waaye li ma ci gën a neex li ma doon reete sama adduna sëñ Afrika mi ko jaarale jëmm ji muy Isaaka Diop parce que Isaaka Diop bu baax la saa ma ko waxee cant booy yi mu ne ma dox lu ma mënti def dinaa ñëw. tam tamit bu dul tur tànk yi sax moom bàyyi day def ak ñoom day dund ak ñoom da leen di matalaat Issa Ba Diop nag bu baax wax dëgg yàlla tey Baye Fall bu ci nekk boo demee ci sa bopp boo toogee Issa Ba Diop du la gàmm lu mu déggee dee dina ko matal moom bokkul ak maire yooyu di tëdd si biir néeg bi bokkul ak maire yooyu naan ay nekkuma fi man mii dafa aab yàq tey Issa Ba Diop moo ma utal liggéey pour tànk yi tanaan li ma soxla woon loolu laa am moo ma jël yóbbu ma marché poisson maa yor jumaa ji dix mois maay tëj maay tijji maay cuuraay maay tampon téye grand. waaw waaw macha allah. man sama papa olo sama papa dara jumaa ji rek dem na ji moo fa yóbbu fa laa doon wàccee liggéey. maa ngi santaat bu wér ci tànk yi tamit ñu ngi santaat di saako jóg. ñoom nee nañ kontaan nañ ci yow Isaaka yëkkati na enveloppe jox na ko jëwriñ bi jëwriñ bi tamit tànk bu baax la. di jël boo bëggee dem yow bàyyi fa bul kàkkee bu naan ay kii maa ko mag jëwriñ la war a doon kii maa ko mag man maa war a doon jëwriñ déedéet sëriñ bi mooy tànn man ma te poisson plus de milliard personnes ma nga fa. ay paa na nga foofu am na ñu pare vingt ans am na ñu pare quinze ans waaye très grand dafa ne maam Afia taalibe bi daa soxla sama jumaa yi muy dafa Afia yàlla mooy dogal kon nag ñun Baay Faal yi ñun ñoo bokk ndey ak baay te tamit xam nga ne suñu sang yii ñu gën leen a jàpp te xam ne ñoom ñoo fi nekkal yàlla ji tey jii di nga gis baay mënul papa mënul yaay mënul. sëriñ bi jël la defal la fóot la ba mu set ku ne xam na ne kon ñu affaire bi seen i meloon war a tout parti bu dee samp tey jii ñun dañuy kontaan kon ñu affaire bu ñu woon kon ñu affaire kon ñu bande yi ñu tuddoon tey seen affaire ko raxas ba mu set bàkke maam affaire kon nañ santaat bu wér ku nekk nag bu sa doom nekkee ci lii da la ci war a kontaan tey booy bu noonu la dem réveil. wala ñu dem benn mag ne bés ko yëngal ko mu yëngu fa dem ñu yëngu ñu bisi waaye jëlee grand les portes de travail pour Serigne Touba Serre Fall. waaw ah kon dañ leen bàyyi ñu travail Serigne Touba Serre Fall. Saaka yal fi yàgg tànd ak wér li bëgg yal na am yal na la yàlla defal jàmm may la wér may la gudd fan yow amoo benn ngaañ yow bàyyi baal yëpp say gaañ lañ muy Tijaan yow muy Laayeen muy Xaadar yi ñëpp say waay lañ xeeboo kenn sàkk bi. barke Serigne Fall Baye Galas ku baax a ngi nii ñun moom avant tey muy ci mairie bi suñu la woon bu ñuy football mooy toog ci boori maye bi tey jii bu mu demee ba gisee ñun ba wax ak ñun nañu dañoo bëgg moo bëgg mairie bi mu jox ñu vingt cinq mille dañoo naan leen ci café Touba jamono yooyu mu ngi dem koor waaye jël du Serigne Touba dañ ko kalaamee maam aaf yëpp ci la dagg ci bi waaye boobu ba léegi numéro bi changé wu ko boo ñëwee si leen kenn du la tëbal boo ñëwee maire ba kenn du la tëbal Isaaka li nga bëgg yàlla na ko xam ak yoon bi sëriñ bi dafal ko ñaan barki sa pape loolu la waxoon. jërëjëf Sëriñ Touba jërëjëf Borom Touba jaarama maam Seydou Waat ñu tubaab bu baax daanaka seen tur yi dafa wax na lépp kon dañuy tëkkaat rek ñu wax bay baax ñu ànd rek yar ak teggin di xam ne suñ fàlloo toog fii parce que maam sëñ bi wala sëñ bi koy tur di dëggalaat suñ tur yi ci kàddu wax rek nga naan ñu sa yor bu ba sa jëmm ji yàgg ko fi la ñu ngi sàkk kuréel góor yàlla ku nekk ci base bi nga dem bàyyi gaas mbàkk yàlla fi yàgg te wér ku ci gën a tawale yàlla nga bokk suñu yàlla ngeen gën a tuubaay bàyyi gaas mbàkk yàlla fi yàgg te wér kon may bàyyi kàddu yi jëm jot lu lu gàtt rek bu koy tënk rek ñu yaatal ko muy suñu yaay booy nekk si koñ bi ñu leen di jégalu yaay buy ñu leen di tuubaat bu baax ñu leen di jégalu ndax nekkat ak bàyyi baax dafa yombul jaayante la mais jubluwul ci leen rek lu ñu am gërëmal sëriñ bi ndax àq dafa sew chaque jour chaque àjjuma bi ci bari ñu lay tëgg suñuy xëy si kat noonu kon Baye Fall yi ñu leen di jégalu waat bu baax a baax. waaw jërëm naa délégation waa Lamine Lamine Lamine Gueye mu leen di teewaat di leen bu baax a baax ndax jàpp nañ mi ngi nii ci ginnaaw dana la sëriñ bu teg loxo barke sëñ Fallu kon bay baal yi ñu la balay sax bëgg nañ nga ñaan yàlla tur tànk yi ndax bay baal bi am tëb tëb la ci liggéey bi daara bi dañ ko santee sax yàggul mais sëriñ bi dimbale nañu ba cant daaw yi ñu nanoon ak bu ren bi jox nañ ay jéego ba sëriñ Tuubaa tànkam kanam rek la jëm amul tàggu ginnaaw kon nag ñu ñaanal bu baax a baax te buñ mel teg loxo sëriñ bi mos a si cat barke si Fallou salaamaaleykum bis bi bis bu ñëpp di rafetlu la ndax ñi ko ñi koy def xëyuñu rek def ko ba ko dalee def dafa yàgg te dañ cee am ndigal ndigal muy Serigne Cheikh Oumou Mbacke Fallou yàlla na ko yàlla yaatal taxawaayam ci yoon bu mu nekk liggéey bu sell bu liggéey ñëw bi rek suñu sañoon Lamine moo fi teew waaye Lamine amaana dafa am gàllankoor ci diggante bi. waaye ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax li ma leen mën a wax mooy danoo ñëw ci ci suñuy rakk suñuy mag suñuy yaay suñuy doom fekk si la seen bis bu tedd seen bis bu rafet bii te yàlla leen yàlla defal leen ngeen koy yàgg a taxawee yàlla ko yàlla def Lamine fekke ko Isaaka Diop fekke ko ñeneen ak ñeneen fekke ko yàlla ko yàlla def Isaaka rek da koy sant di ko gërëm di sant Lamine di ko gërëm man su ma yeboo nii ñaar ñii rek ñoo fi war a nekk maire muy Issa Diop Lamine Gueye bu jàkkaarloo fii dafa naa fii kenn dootul am lu woon la tey ci diggante bi bi muy ñaar ñaari nit ñooñu. ndax dafa bëri toogaloo yi am foofu fii si diggante commune ñaari commune politique bi métti bi lool waaye ñoom ñaar xamuñu àndal ñoom ak àndoon ñoom kon genre nit ñooñu dañ leen war a téye yàlla rek yàlla yàggal seen taxawaay yàggal leen fi ñu yàgg def lu baax dañuy ñaanal Lamine côté commune Pikine su ma yemoon ni man su ma fekkoon damay nekk baax a ñaari boor kon damay wax fii Lamine laa fi fee Issa Khalafa waaw yal yàlla yàgg gën a dëgëral seen taxawaay gën a seen liggéey ba mais mais euh, élection yi ñu ñu daje fii Issa fi yàlla def du fekke ko taa ko nawet rek jël na boo xam ne xeeb na ko trop di ko teg ci loxo yéen ñu nga xam ne yéen yéen fekk si xeeb na ko ba fu xeeb yem ndax parce que nawet ku bëjëg la xam te da ngeen koy yëg te lii nag lii muy def nii def ngir politique kese ndax ñu koy def am na loo xam bu ko nit defee da ngay xam ci la waaye am na ñoo xam ni bu mbirum politique duñ ko def muy suñu yenn maire yi fi nekk waaw ñu daal loolu loolu amul ci loo xam ni moo tax ñu jóg ñu fii jàkkaarloo ngir jëm baal tool yi bàyyi ko sama mi ngi daara Jolof dañ koy ñaanal fan wu gudd ak wér ba li nga xam ne bu ñu dafa liggéeyal maamam bu tedd bi muy mu Seexul Xadim Xaadimu Rasuul yàlla dana su kawe jotoon ak mbooloo mi ko amal Màkka nag amuñu dara mënuñu dara xamuñu dara li ñëpp wax jërëjëf Serigne Touba Xaadimu Rasuul maa ngi ñaan ci doole yi Serigne Fallou ku gën a kawe ne yàlla nga gën a gudd fan. ko Maam Touba Ousmane maa ngi jël nga jàpp bu ma gis xam ne man ab caméraman la damay film waaye waaye jëmu jëmu di tedd kii kii waaye juróom mu tedd Alaaji Cheikh bi Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal moo ma ko def kii laa toog di jëw li kii di aar ne moom mos na toog ci tànk délégué Serigne Touba dugg fi ba war a génn ñuy wax suñuy soxla te duñu ko jox addiya jëmm ji moo ko soobee waaye soobee ba sax loo xam Ousmane li ngeen laaj jël leen ko ngeen téye man damaa bëgg juróomi mënu ji yaakaar sëñ Fall ku ne jox ma junni may tàmbali yéen ay téeméer ngeen laaj ak ñaar téeméer tey ma woon na doole sëñ Fall ak kan mooy sëñ Fall ñun lu nu am sëñ Fall nu mu mel sëñ Fall sëñ Fall képp lu ñuy tiitoon dama ni juróomi mënu ñu yaakaar sëñ Fall laaj na ma kenn ku ne jox junni benn man maa koy joxe man sama bopp benn man delloo ma junni yàlla téel ma Mbacke gars yi dañ laa dañ laa dañ laa kalaam rek monsieur le maire eh gars yi fii nga téye wuy ma jël naa sama junni man ba pare da ngeen di waxtaanee seen falu taxaw nañ ko seen falu seen bi nee na joxe na ñaar beneen dëgg la tey maa wala kuy seen falu yéen xamu leen sax kuy seen falu xamul ne kuy Sëriñ Fallu xam nga denc bi dafa yàgg lool jëw yi da ko wax léegi dali daayira bi biñ ko fi say daaw la catu daaw gi melu tool nii waaye jëw jëwuñ di juum waaye daal loo fannaaw ndax fii bi fi Alaaji Cheikh bi Mbàkke mu Sëriñ Fallu di taxaw du tey bay doon na ngi nii Papa Ndiaye ngi nii donc Afia am na loo ci fekkee booba Baye Afia Mbàkke mi ngi dund sëñ Afia Mbàkke yàlla yàlla yokk ay dara tax ci barke ko def te néew Serigne Cheikh Oumy Mbacke laa ñëwaat Serigne Cheikh Oumy Mbacke mu daan jóg doxi ji ko man seede laa ñu dama daan dawal ko Serigne Cheikh Oumy Mbacke mu Serigne Fall wax bu leer laay wax doxal yi nga xam ne ma ko baax xëy na gone yi bindu tey jii kattan rek mënuñu waat duñu moroom kan dox mi ñu koy wax sànq ñaata lañ la jox ci juróomi junni yi may daal ci Serigne Fall may doon bi Serigne Cheikh Oumy di taxaw ci tànk bi ci fedd bi ñaari junni moo def si lii Mbacke baal ma tudd rek. Sam li nga wax dëgg la. yow jëwriñ moom jëwriñ di dox sa waajur ko daf ñoo ñu juree ñu wan ñu àdduna ñu dox di liggéey di mën a jëriñ suñu bopp tey am na soxna Maguette si la mi ngi fi ci benn mi ngi fi toog doon jàmbaar àlla ji Cheikh Oumy Mbacke mu suñ fan lu xam ne lu fekkee non xam naa ko bu baax man la nekkatul xam ne ndax dama yoroon ay denc sa bopp nit ñi suñ béy ko dindi ñama dugal ci biir nasa gaal yi mel ni ni mu niwul leen dañoo bokk ak ñoom alul suñ bu baax képp la doon ba ilaa yow mi kon fii buñ fi am na lu ñu a taxaw tànk kese taxuñu fee ñëw ak saa yëpp Mbacke li nga bëgg def ba bàyyi naa mais am lu ñuy seede rek ndax am na loo am riir bëri ba kenn ku ne def ni riir moom day nakal déedéet ni riir nii xew wala bi xaj bi di dugg parce que Cheikh Amadou Baba Xadim ñi mu toogal ñëpp ñu baax nañu waaye moom bu baax la ak taalibe bàyyi fan la wuyoo ndax dañ moom mos na deret Sëñ Tuubaa toog ci biir baas yi kenn génn ñi bi keneen def fi ñu war a wax ba joxe kàddu bi dañu leen jox andi Sëñ Tuubaa sa maama ko moom sa maama ko liggéey yaa ko moom bàkke buñ la ko joxee yaa ko moom buñ la ko joxul yaa ko moom foofu la beneen bi ma fi doon jëmm ji doon monsieur le maire Issa Diop barke Cheikh Alaaji Cheikh mi Mbàkke mu Sëñ Fallu tey laa koy door a gis tey laa koy door a gis waaye alxuraan moo ne wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa tey ma wax ci moom li ma xam te musuma koo gis dama koy dégg te ñi koy wax ñëpp ay artiste yoo xamante ni ñi ngi ci man ñaari émission yoo xam ne ay bés bu ne alxames ak dimanche kenn ki mooy def xam-xam-xam ne di waxtaan ci diine ci xam ne beneen bi moo koy def di ko wax jotaayu mag ñi di fàttali ko mag tudd na ma du benn du ñaar du ñett du ñeent du juróom ba ut audience ngir ñu war a mën dem seeti Issakha Diop ni ko boobu gisuma Issakha Diop musuma koo gis tey laa ko mos a gis bu ma jógee fii dañuy bi xaaruma mu jox ma junni bu ma def ci sama poos damaa génnee sama addiya joxe te sama poos des na te bu ma yeggee sama kër daf am na lu ma fa denc sa bàyyi ma ko denc kenn defu ko waaye dëgg laay wax te yàlla tax jëfam ju baax ji mu nekk ci biir gox bi ñun ñun Baay Faal yëpp nañu ko nun Baay Faal ñun ñëpp nañ jëfam ji muy jëf ci biir gox bi man xaw ma maire la bëgg a doon xaw ma ministre la bëgg a doon xaw ma président na natt boppam fu mu bëgg a yegg dana fa yegg ah, waaw fu mu bëgg a yegg dana fa yegg ndax li may wax nii moom joxuma lu tax may wax joxuma ko tam ñi xaar mu génn ci baas bi jox ma ëppale wu ma dara ndax damaa am sa baay am nga daay ni ñu toog te amagu la damaa bëgg moom la damaa bëgg mu mos la yow bàyyi dara si Mbàkke alaaji Seex mi mooy sa baay suñ falooy sa maam suñ tubaay sa maam Mbàkke Isaa mos ko boo ko xam ne sëñ Fallou nii toog biir na si laa ilaaha illallaah dara jëy Cheikh Ba lii képp la ci doon wax jërëjëf. waaw dañuy fii kàddu bi. sëñ Fallou. fu waay taxaw nga li nga xam ne moom lañ dajale muy ak yéen Mouhamadou Fallou Mbacké ñii ñu raam pour yees bi dem ba si sëriñ bi jébbal ne ko mu ñaanal ñu ku am soxla nag wala bëgg-bëgg wala bëgg aajo mu faj fas fas ndax kii faj aajo yi ñu ngi nii toog mooy li ma wax sànq rek doomu jaan jaan la doomu kaani kaani la kenn ci kaani di ci gerte di récolter gerte mbàkke bal la dañuy tuub bu baax di jégalu di yeesal suñu jégalu bu baax a baax di wax fu waay nekk na tàmbal waxam tax amin sëriñ bi ñaan ñu jox gaar yi ñu kii mu kii ñu kii ba beneen bisimilah jooju tàmbal leen loxo yi tawaat amin ñu jox sëriñ bi ak kii sëriñ bi nee ko ñun seen fàllu ngay jox xaalis waaw mbàkk kon yaa ko dégg loolu lay naa nee nañ sama bi baax na ñuy jox xaalis doolay ko mooy bu gaa yi si kam kon doog jiboobu teraat bi fàllu ko Touba Ndiaye moo fekk nit ñi di jënd di di réew muy di xamal la réew mosul woon wax sept ans di jàppal ndaw bu xalaat yow nag doo daw ñun da ngay rek doo ko daw. Mbacke li ngay laaj yenn jàpp la fan wu gudd ak wér kattan bi ñu liggéeyee sa maam képp la ngay di laaj li ci des suñu doole bi leen ko may ak suñu fan muy la jom ak kattan bi pour liggéey dinañ liggéey bu soobee si Mawone Fapal bu ñu sàcc bu ñu fen bu ñu topp ñu bàyyi. Mbàkke foo toll nga tàllal loxo ndox amit ñu jébbal ak biir sëriñ bi bu def ñaar ñu kii bu kii ba beneen tàllal la loxo yi Mbàkke bismillah gudd fan ak wér daal la ñuy ñaan waaye xaalis moom danañ ko am par force barki sëñ Bamba on ak sëñ Fallu looy tiit mbay wuyu Thank you. yàgg ndax suñu tool yi ñoom ñu sàmm ci dëkk bi dañ koy tàmbaleel rek ndax moom ñun mënuñu koy wax ren ñu yéen doomu aadama te moom mu nekk may jox Mbacke moo ma jox ndigal pour mu dégg sama baat balaa mooy yeewoo te ku ne xam na ni Ndiobu Sarr mooy sama jëwriñ ñun ñëpp loolu moom ku nekk xam na ko te diggante bi daa yàgg kon lay maanaam yëpp mën na koo seede kon ñu bàcceelu bu néew mu bari ci sëriñ bi li nga mokk loolu si suñu jëmm ببركة الشيخ أحمد الله خالد وسلم الحمد ميسة بيسة أبي الكريم بيسة أحمد خالد بيسة فضلهم أجب دعائي ربناي من يتبعد بشيخناي أخمدني رسولنا فسبهم بدافي سيضللوا تدعت لا بشقرا نتركها يا ويبورا yaa la ko raw maa del sunu maam sey naa ko jaay Cheikh Ibrahima Fall lamp yaa ngi xooy baal ki daan ci laa bi sun borom bébé Ibrahima way borom ginaar yee ki nu morom ñu gëm ko naas yàlla nu raw lamp yi di jaar gërëm bëri gi tax bëreew bëreew moo tax sëriñ bi laa bi naan Cheikh Ibrahima Fall te mooy présidence moo mooy présidence moo jox sëriñ bi laa bi naan me sukaaɓe woni jeey nde cefñumuɗa men nde tarawoɗa men mo sambayaya fa so jeeyi maɓim ɓenɗaaka mo sukaaɓe woni jeey nde cefñumuɗa men nde tarawoɗa men mo sambayaya fa so jeeyi maɓim ɓenɗaaka me sukaaɓe woni jeey nde cefñumuɗa men nde tarawoɗa men mo sambaya سمعنا أي سمعنا سمعنا ظالم أي سمعنا أي سمعنا سمعنا سمعنا أي سمعنا سمعنا ظالم تبعيد جود الجمال في مثال يقوم برنا جعل يتخجل يوم Dokamu yang réew mi toog dafa am yenn kàddu bu ma jëlee yenn kàddu yoo xamante ne nii su ko wax li tax moo ko sax xamu ko muy lu sëñ bi léegi bi lay wax dafa wax ne ñun ñëpp sëñ Tuubaa lañ yaakaar man mii di wax ak yéen defuma dara lépp sëñ Tuubaa la sëñ si yow mi ñuy wax. deful dara lépp sëñ Tuubaa ak keneen ak keneen ak keneen sëñ Tuubaa nag lañ yaakaar la moo tax ñuy jëf kon nañ fexe ba li ñuy jëf nañ ko sell sellal bi moo ci am solo ginnaaw ren jàll na ngeen waaj lépp loo xamante ne nii defoon loolee nag man ci gën koo seetloo ndax jamono ji ñu toll toll nañ ci jamono yoo xamante ne nii bëri na ñoo xamante ne nii dañuy def gis waaye la tax ñu koy def ña koy def sax mën nañ koo def ba pare ba jóge te kenn du ci jariñ ndax laa daanaka dafay yàqoo ëpp dafay defoo ñu bàyyi xel loolu ci bis ndax ginnaaw dañuy def ci suñu waa ndax dëkk bi ñi raay garab wala ñenn ñi seen moo tax ñu jàng dana moom moo def li war li war a tax da koy jàng kon ñun ñi nga xamante ne ni dañuy woo Baay Faal ñi di woote woo ay Yaay Faal ñu a sellal jëf da sëñ Tuubaa sellal bi nag passé wu ñun li nga xamante ne ni ñu ngi koy def ñu dëggal ko ci sunu xol mu doon jëf yoo xamante ni jëf bi dëggu la ci sunu ñu ngi ko def ngir mbay ñu ngi ko def ngir sundaay waan ñu ngi ko def ngir kenn daay sëñ Tuubaa daal koy def dañ koy def ci sëñ Tuubaa daal ndax ne ñetti na seen pas-pas dëgg ci sëñ Tuubaa lépp lu ñu bëgg a taxawal mën nañ ko taxawal ndax sëñ Tuubaa ci ñëpp ñu boppam kàttanam xëyut ci daal dara amul ci ñëw ci bis bii defuñ ko ngeen suñu coobare ci ndigal lañ ko ci suñu ndigal kilifa lañ ko defuñ ko ngeen suñu jëndi bopp te xëy na teewaay bi ñuy teew ak yokkute la ci ndax man damay jàpp ne ay taalibe Sëñ Tuubaa ñu taxawal mbir nga bàyyi sa yitte sol saw daal dem ca te yaakaar ci ndimbal mën nga cee am nañu kon ñun loolu moo tax ñu sol suñu daal la ndax gëm nañ ñu ci am ba ñu sol suñu daal di ñu ñu bënd seen te noonu nag sàkku wuñ leen ña ko fay sàkkoo muy suñu kilifa ndax foog ñu foog ñu lër ña fa nekk nekkee fa lam ñu ko lam ñu ko sant pour ñu nekk kon nag yeneen lu ñuy dolli ak sant lañ koy def waaye nag du tee nag buñ buñ ñëw ba jógee bi danañ war a wax duñ ko wax ñun lu ñu war a wax lañ wax ndax bu fekkee damaa ànd ak yéen te du ma leen wax dëgg man ngeen ma man ngeen a seet leneen ndax li ñu àndee surtout waa dina am surtout waa ànd dëgg te mën ngeen fay jaar kon ñu gën a seetlal jëf te di ko def ci suñu tubaab rek tax buñ bëggee suñ tubaab sayal na boppam nañ koy def ko suñ tubaab la képp képp ku gis ni nga bokk ci suñ tubaab nañ ko jox wàccuwaayu ñu bokk ci suñ tubaab ndax nit ñi du li nit ñi def moom moo koy lool waaye muy bàyyee xel li nit ñi def ba tax ma ko gis loolu mooy loolu kon bu ñu gisee nit kuy def naka suñu noonu nañ ko ñaanal suñu borom teggil borom waaye buñ ko ko jàppee wala ñu ko koy xoole ndax àdduna kenn mën ndax ku ci nekk boo duggee ci sa biirum néeg boo xoolee sa jëmmi bopp daa ngi gis loo maaj loo loo xamante ni mot na daa ngi gis ak matal ci sa jëm kon nañuy ne bu ñuy xool matal di ko matal nañuy xool suñu matal di ko ñun ay taalibe Sëñ Tuubaa rek te njëriñ njëriñu ci Sëñ Tuubaa rek lañ ko kon nañ fexe ba sellal lépp lu ñuy def ngir Sëñ Tuubaa nañ ko daa mel ni sëñ bi gën a dimbale te lii ngeen di def li ngeen ci sëñ bi lépp yàlla na ko sëñ Tuubaa def sol sol dàll yi ñu sol koo xamante ni indi na fi aajo sëñ Tuubaa man na ko Cheikh Mamadou Fall man na ko yàlla na ko sëñ Tuubaa saama képp ci jëmmi boppam boppam te bëgg suñ suñ borom bii nit ko yàlla na ko suñ borom saafara ci bisu tey bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi su ma xool seet la wax jërëjëf. waaw léegi ñu ngi ci xam loolu wax. waaw loolu moo xam ne moom. votre service